andi wax naa ay bokk ci fan yii ne leen day ñëpp nañ ci jàpp ndax bu àggee kat pax yu sew sewaan ak yi xewan yépp ñu doon ko wax mën naa saafarawu ndax daaree alxuraan ak daaray xam-xam joo xam ne lépp ci xam-xam yuñ baaxoo jàng ak a jàngale mag ñi daan ko jàng dañ ko fay jàng moo wax ne mboolem seex si ànd ak Sëriñ Tuubaa yépp kenn ku nekk na nga yónnee ñaari nit ñu dugal leen ci daara yooyu ña ca toll ci jàng alxuraan ñu jàngal leen bañ nekk ay kàng buñ noppee dugal leen ci daaray xam-xam yooyu ba ñu nekk ay póori ñu delloowaat leen fañ bàyyi ko woon samp fa ay daara loolu bu amee tey saxara yëpp dana fot kon li ñu doon jooy lu bari dana dana wàññeeku kon kenn duutu jiitee ci aw nit wala ak kër goo xam ne tey marja yee la ci yoon wi ci wàllu diine te boo demee doo fa fekk daara ju ñuy jàngale alxuraan doo fa fekk daara ju ñuy jàngale xam-xam ku fa jàng dangaa ngaa jëggaane am njàng te boo jëggaanee ab jàng jëggaane ab yar indaale jikko mën nga faa jóge sax teggi ñu baree baree bari tey ñoo xam ne seeni njaboot wan nañ leen gannaaw dem faneen yeneen fëkk leen looloo ko waral ndax boo dee ab bi sa kër sayxul murabbi daara jañ la war a jàngale wala yar le amu fa ba sa baay yóbbu la fa neen ak ci ñeneen boo fa jógee mën nga faa jóge dem ñu baree bari ñàkk nañ tey ay ay ay ay ay njaboot te loolu leen ko xañ lii nag bu amee day ñëw ci man ajul xuraan alxuraan xam nga wax na ko nee na dëgg la kër yi ñëpp mënuñoo maase gàddaay na ñëpp nañ jànge waaye ba noonu la ko wa maa kaanal mu'minuuna ah an yanfiru kaafa waaye falaw laa nafara min kulli firqatin min taifa dëgg la kër yëpp ñu ñëpp maase ne dañuy gàddaay jàngi alxuraan ba mokkal jóge fa jàngi xam-xam déedéet alxuraan nee na loolu ñu ko sax ci kenn waaye nag kër gu nekk lu gàtt gàtt bu fa kenn wala ñaar jógee jàngi alxuraan ba mokkal jàngi xam-xam bu ñu delluwaatee par loolu fardu kifaaya danañ mën a wuutu ña defutan noonu ca ñooñu loolu fa tabaarakallaa kon bu lii amee loola dana mën a nekk loo xam ne lu am solo mu mel ni noonu nga xam ne itam ci wàll googu e ci la ñu fekkee sa iru tasayu tasaddur gis nañ ko muy loo xam ne kenn xamu ci bàmba ji seet leen ñaar fukki at yi weesu ci gannaaw ñaata cheikh yu bees yoo xam ne mbooloo mu dul jeex moo leen topp ci tuuru yoon wi te kenn ci ko xam ne mas nga teg sa tànk ci daara ju ñuy tërbiyaa ci njàng mi de wird la mais déglu kuy jàng xasida wird la waaw jàng xasida na jàngkat bi la delloo ci yàlla di la di la mëdd di la tëbb ne la déglu gu sell ga di la delloo ci yàlla gis nañ sëriñ Saliou kenn ku ku ko xam ku nekk ci diggante lee timis ak gee wala diggante gee ak yooyu kuréel yooyu mu doon jàng suñ am sa du toog suñ léeg-léeg suñ Moussa Abdou Khadir ñëpp kenn du yëngutu ko ak si sax nuyu ko doo ko ni mu consacré wu parce que noonu la ko Seex Xadim daan def muy déglu gi waaye dañoo tànnan nag na sëñ bi tànn daaj yi ñuy jàng euh, groupe ak ñiy jàng rajo ñu dem a dem ba ab phénomène judd boo xam ne ñuy jël xasiiday sëriñ tubaay yi di ci boole lu kenn xamul ay kebetu ay kebetu ak loo xam ne doo ko xàmmee ak i taasu ak mbaboor ku toll ni Seexal Xadim jàkkaarloo ak boromam jàkkaarloo ak Rasulullah di wax ak moom ñàkk xam tax waxam joojee nga di ci dugal lu ca bokkul fa nga koy jàng it ay jigéen yoo xam ne dañoo solu ba noppi te boo leen jàkkaarloo ñu mel ni ñuy soluwut ndax seen yaram yépp yaa ngi koy jàkkaarloo ak ñoom def cercle di dukkat di la wër loola muy zaahira boo xam ne ci jamono sëriñ bi kenn mësu koo ñeme xam nañu ne Cheikh Abdoul Ahad bi muy door a toog am na tournée bu mu defoon ñëpp dégg nañ xew-xew ba ca am am dëkk boo xam ne rek koo porogaayaanu ñu war fa fanaan bañ demee ba ca guddi jàngkat ba ñu programmé dugg ca kebetiwam yooyu bayit wum tudd rek ñu lim nangami sëriñ boole ci yeneen ak yeneen yu ci bokkut suñu yëpp laxat dafa woo kilifa ga ba mu ñëw mu ne ko déngaa diw moomu na dakkal li muy def wala ma abal leen seen seenub dëkk ñu fekke woon ñu fekke woon ngan ga ñëpp xam nañ ko loolee nag dafa yokk tey waaye mu am nag bu gën a garaaw bu am muy ay jigéen yoo xam ne tey dañoo taxawal ay kuréel ñenn ñi ay groupe yoo xam ne di di jóg di géew nañuy géewale góor ña di jàng ñu di leen aw ñu yëkkati seen kàddu ca kaw di jàng ñu di leen aw ci tànt yu mel nii góor yi wër leen ci loo xam ne maanaam lu ko gën a araam gën koo bon amut ci diine Cheikh al Xadim radiallahu anhu bi mu nekkee njaareem waa bar sàq muy nit boppam yi so waa kër boppam yi ca kees gi nga xam ne moom la leen wëttalal di leen fa entraîné ci ñuy jàng xasiida moo daan dëbbe wan leen daaj yi ni mu àggal ñuy riim ndànk waaye ba ñu demee ba nga xam ne kër ga dafa yaatu ba am ñu ca dolliku ñoo xam ne du ñu ay maxaarim te dañ leen a war a tarbiyee ca loola dañoo wut ñaari kees buy tàmbali daaj bu bees bu mu leen di jàngal maxaarim yi képp ak waa barsàq ñooy teew ña ca des ca genn kees ga la ñuy nekk bu leen ko jàngalee ba àggal ne bu ngeen demee ba déggat séenatu leen ma déggatu leen semaine kàddu nag ñoo ñee nekk ca kees gi di ñëw ànd ak yéen te bu kàddu gi génn génn barab bi ngeen koy jànge sëñ Maamoor am bi sunu jarbaat sunu doom nettali na ma bërki démb ne ma dafa am benn daayira boo xam ne way juróom wu jigéen ci la bokk ñu wutaleen ko si Abdou Xaadir radiallahu anhu e ndeysaan fonk xasiida rek tax ñu tàggatu ci jàng xasiida di kuréel nee na benn at ñu ñëw di siyaare si Abdou Xaadir biñ ñëwee rek ubbee siyaara ba am njàng biñ noppee yëkkati si addi yoo ne si Abdou Khadir sant leen gërëm leen ci yitte ji ak parlute gi waaye nag amaa lii ngeen doon def muy kuréel moom xam leen ne yéen a dàq fuuf baat góor ñi kon su fekkante ne yëkkati seen kàddu dagan na yéenay nodd ci jàkk yi ndax nodd ku neex gën a neex baat lañ ci tànn waaye dangeen ngeen koo sëñu kon nag bu ngeen demee li ci des lépp na ngeen ko wéyal ba mu des de kuréel bii na dakk Cheikh Abdou Khadir noonu lañ doon def ñoom léegi nag bu ñu demee nag tey ñun ba nga xam ne tey e ay jigéen yoo xam ne ñooy jóg ñu deba dem ba jigéen ñi yamatuñ ci lool sunu borom subhaanahu wax ne la ana allahu almutasabbi la ànd allahu almutasabbiuna min arrijaali bi nisa wal mutasabbiuna dina ay ibri jaan yàlla rëbb na góor ñi nga xam ne dañuy nuru nuru lu ay jigéen ak jigéen ñi nga xam ne dañuy nuru nuru lu ay góor ca col ga ak ca wax ga ñu jëkki nag ba bu màggalu Tuubaa ñëw wala màggalu Poroxaan nga gis ay jigéen ñoo xam ne dañuy dem xotti lu ay yére ñaw lu ay baylaat ak ay caaye sol ab laafa nga xam ne mën nañoo dox ba agsi ci yow bu ñu waxut doo jàpp kii la te yàlla yonent bi yàlla yónni ci nu ne yàlla rëbb na yëmut ci araamal de rëbb na te dañoo wax ne lu bon dey moom lu bon la foo ko mën a defee ak foo ko mën a waxee lu bon la waaye la ci gën a bon gën caa ñaaw nag mooy la nga def nag ca barab ya gën a tedd ak bis ya gën a tedd kon nag bisub sëriñ tubaa dëkkub sëriñ tubaa nga seet li yàlla rëbb yonent bi rëbb ko nag waxtu wooy ñëw ci bis ba nag loola ngay def te def ne loola mooy dëggalal sa taalibe bi moo koy wane lu mat a bàyyi xel kon yooyu yëpp mu nekk loo xam ne eh, lu doy waar la waaye ba tey ñu gisati nag loo xam ne ba tey noo ngi ci xasida yi kenn ku ne xam na wàccuwaay bi nga xam ne moom la xasida yor ci yoonu murid wax naa ko léegi sëriñ bi mee ne araba min shi'ri iblisul marid wa bi xasaidi yahtadil murid foo xam ne fu ñu yëkkati xasiide yi te di ko jànge nañ ko war a jànge saytaane bu ko déggee day daw bokk na ci it wasifa bi muy jubbanti taalibe yi teg ko ci siraatal mustaqim kon kenn nattablewut wàcc waaye ak taxawaay bi nga xam ne moom la xasiida bi yoroon waaye nag dafa bokk ci ay jumtukaay yi nga xam ne mooy jumtukaay tarbiya ak tarxee ci yoonu murid gis nañu phénomène boo xam ne ñoo xam ne tey dañuy tuddoo sëriñ bi mboolem loo xam ne lu aju ci ibaadaat buy xeeti jaamu yàlla yi yàlla farataal yépp ak lépp lu aju ci ak taalube muy xitmaak am wasilaak yépp dagg nañ ko ca yamale seen mbir mépp ci dàng xasida gis nañu ko ñoo xam ne julleetuñu farata julli farata yi yàlla farataal defatuñu ko amatuñu sëriñ kenn ku ne da ngaa tànn xasida mooy mooy mooy mooy mooy mooy sama sëriñ joxeetuñu addiye liggéeyatuñu suñu ay kuréel lu toll ci ay fukki at ak nangam yoo xam ne mu ngi feeñ fii ci fii rekk ci Touba fi jàkkaarloo ak jumaa ji gis nañ fa ak kuréel boo xam ne ñu ñëpp xam nañ leen ay mu kàllaf yoo xam ne kenn yeesu ca juróom benn fukki at jàkkaarloo ak jumaa Serigne Touba ji te amul benn waxtu woo xam ne danañu nodd ba nodd ga jaral leen soppi seenu toogaay foofe la ñuy toog ndax ñoom asaf nañ dagg nañ julli ci seen programme dagg nañ lu mën a doon amatuñu sëriñ joxeetuñ addiya joxeet yamale leen lépp ca loola muy lu garaaw loo xam ne lu ñu sos ci biir bamba ji la ba noppi am ñàkki tegginu dem ba jàkkaarloo ak sëriñ Touba ak barabu suñ Touba ba di ko di ko manifester foofu muy loo xam ne du su war a seetaan waaye am ñoo xam ne itam eh, xëy na àgguñu foofa waaye nag tàbbi nañ ci bayitu sëñ Tuubaa wa kat am na ñoo xam ne fi mu toll eh, muy beneen phénomène muy beneen phénomène muy dëgg la fayal fayal ma beneen phénomène muy ñoo xam ne xëy na àgguñu ci fii waaye ñoom it dem nañ ba wax ne mboolem xeeti jaamu yàlla gi nga xam ne dañ koy def ci aw làmmiñ lu ci dul jàng xasiida dutuñu ko defati dutuñu wirdati wenn turu yàlla ñu jàggate sax alxuraan alxuraan sax bàyyi nañ ko jàng ndax ñoom dañoo gëm ne maanaa la xaside mën a def ci ñoom alxuraan mënu koo def ci ñoom te ñooñu Cheikh al bi mu sosee yoon wi ca Mbakke Kajoor ba mu fa gàddaayee ñëw Mbakke Bawol téere bi mu njëkk bind ci jubbanti yu mel noonu muy masaalikul jinaan ca njëlbeenu téere ba ca bunt ba rek la njëkk a dàkkaafu ne bokk na ci liñ dugal ci biir diine ji ngir réer ay ñoo xam ne ci njërum tasawuf lañu nekk waaye réer ak sànkute dem tax nañu dem ba programme ba leen seeni sëriñ jox moo xam ay awraat la moo xam ay xasaayit la moo xam ay lool dem nañ ba moy ca wan gannaaw alquranul karim araamal seen bopp alquranul karim ngir defe ne loole ñuy jàng te seen sëriñ jox ko moo gën ci ñoom alxuraan sëñ tubaa dem ca ba wax loo xam ne néew na foofa sëñ tubaa agge agge ak kenn fasaalika dalilu zurin wa kadib wa baddu man tasawwafu wa saamoo bi annama ah dema dem ba wax ne ñi nga xam ne ñooña dem nañ ba jàpp loolu moo gën ci ñoom mu ne loolee de ñooñee nañ xam ne lañ sukkandiku bay wax loola jàpp ne alxuraan am na lenn lu ko gën ay lay la yoo xam ne ci ay caaxaan ak i fen lañ ko tabax sëñ Tuubaa néew na bu mu àggee noonu daane nañ xam ne iblis moo leen këpptal ba jàpp leen dugal leen ci pax muñ mënta génn kuñ topp ca loola ak kuñ àndal ci loola ak ku lañ leen di soñ ci kon buñ ko jàppee kenn ku dul iblis ak ku ànd ak iblis loolu sëñ Tuubaa bu ko waxee ñu dem ba ku koy tuddoo ku koy tuddoo ak ñu koy tuddoo dema dem ba dem a dem ba nga xam ne alxuraan ci boppam pepp la ñenn ñi pepp lañ ko tuddee ñenn ñi ko tuddee ab cox lu nekk ñu ngi ko koy caricature di ko tuddee nga xam ne araamal di ci seen bopp maanaa jàng alxuraan ci boppam defe nañ ni sànq ab temps la ci moom ak alxuraan fa ko Sëriñ Tubaa tegal nga xam ne maa ngi liir bëkk démb ci sëñ Mad Lamin wala a Mouhamadoul Basir muy wax ne dafa am benn bi sëñ Maodo Jaara ñëw gane ko nee na fekk na wut te toppatoo na kër gu goo xam ne da ko wut ngir suñ moor la fa war a dal ba mu agsee ba mu boole ko ak sëñ Sayid Mbàkke mi ko war a yóbbu mu ne ko ah kër gi day gis nga ko li fi nekk day yeesu juróom fukki néeg benn bu ci nekkit waajtaay yi ci war a nekk yépp ci néeg ngi waaye lépp nag alxuraan laa ko jagleel amu ci benn téere boo xam ne lenn lenn dëkkoon na ko lu dul alxuraan ak ak bagage alxuraan loolu nag moo tax ni nga toll ci man mu wutal la sa néegu bopp sa këru bopp kër yi yëpp alxuraanul karim ndéeg ya alxuraan la ko wutalan lal yi alxuraan mbàjj yu leen ya alxuraan di ko tagg fu mu sanc fu ne wutta fa jàkka ak daaray kaabil lépp lu ñuy tàmbali ne alxuraan lañ koy tàmbalee alxuraan moo moo ko moo ko mboolem ñi nga xam ne mooy njabootu boppam gi ak ñim yar ñëpp kenn ku ne wax sa alxuraan mooy jiitu kenn mënu leen wan nag ci jàng alxuraan muy doomi sëriñ tubaay yi ak ñi sëriñ tubaay yar kenn mënu leen ci jàng euh, euh, euh, xasaayit kenn gën leen a xam ak xasiide fañ ko tegan ak nañ ko da jàng àll kenn mënu leen ci waaye rek alxuraan bi sëriñ tubaay ji wax ne wa afdalu zikri kitaabullah li gën ci lépp lu ñuy jàng ci aw làmmiñ mooy alxuraanul karim nag moom la lañ jiitalan kenn ku ne sa waqfu alxuraan sa wax waqfu xasiida doog caa teg ak sa waqfu wérde kon nag loolu yëpp tey bu fekkee ne tey dañoo dem a dem ba bëgg a def ay bouleversement indi yoo xam ne bokkut mag ña xamuñu ko mel ni tey ñoom ñu mujj ñii ñoo gën a xam mag ña ànd nag Serigne Touba na nas war a def wala nas war a amee ngërëmal kii bi boobaa loolu jubbanti ga day mat dañ ko dañ ko dañ koy dañ ko war a xool bu baax a baax a baax xoolaat ko romb yi ci des muy euh, loo xam ne waxaan nañ ko fii gis naa ko ci biir euh, téere bii muy yalwaan saairutu tasawul tey danaa ko gën a yaatal ndax euh, dama waxan ci waxtaan wi ne danañ waxtaane yi nga xam ne amul cosaan ci yoon wi ak yi nga xam ne dafa am cosaan ci yoon wi waaye dañoo dem ba wëlbatiku ko ba mel ni cosaan la dafa nëbbu loolu nag yalwaan mii xew léegi ca la bokk yalwaan bu am cosaan la ci bàmba ji mais kan moo ko doon def e bi bi nga xam ne dafa nekk ci daara yi laxasaay di tërbiwu seexal murabbi bu mat sëkk seexal murabbi moo daan def bu ñu liggéeyee ba nawet bi jeex ba ñu far màngo ba mu dellusi ci kër gi ba ñu noppi ci liggéeyu bi ñu baaxoo def ci kër gi muy takkaat néeg yi sakketaat rabataat defaraat yi ñu war a def yépp ba lu toll ci weer des ci diggante muy ruuji day delluwaat ca fa mu bàyyi ko woon nu ji ay bokkam waxtu wii bu jotee diggante timis ak gee mu yor am laayaam wéeg ko ñaari buusam kë buntu kër bu nekk mu dem fa yëkkati mawaa ibu nuyoo leen ko jàng jàng jàng jàng jàng ba ñépp seen xol sedd mu daal mu daal di wàcce kàddoom dem siyaare ñépp bokk yooyee kenn ku nekk seet loo ko jàppale bu dëkk ba jeexee mu def ko tund wa mu yor ñaari aspect muy aspect toroxlu aspect boo xam ne dafa bokk ci tarbiya yi mooy toroxlu ndax fi nga xam ne tey fa say bokk nekk sañu sa baay yi yilif ak yépp nekk fa say kilifa nga delluwaat fa sol ay sagar fenn fu nekk nga taxaw fa yëkkati sa kàddu ne mastata gone di la reetaan ñi naan daa dof ñi naan lépp nga muñ ko te yàlla kooku dafa bokkan ci maanaam humiliation ak naw def ba toroxal sa bopp kooku dafa bokkan ci tarbiya bi ci bokk waaye beneen ba ca des mooy aspect ba mooy liggéey bi nga xam ne dañ koy liggéey te mu dugg ci ma war ko jox seex seen seexul bi mu dugalal leen ko fa mu ko war a dugal dañ doon duñ ci doon bëgg duñ doon bëgg duñ ca laal dara luñ ko gën a mën a sakkantal ba duñ ca lekk dara moom lañuy ñuy def loolu moo waral loolee ñu daan yalwaan mu nekk ay mbuus yoo xam ne buñ ko bu noppee bu noppee ay saako lay doon lii pepp la lii wóor la lii gerte la li lii donjiti sukkër la buñ ko dajalee ñoom ñépp ñu ko defan diirub nawet bi mën nañoo bañ a laal dara ca lañ bayan mooy ci seen loolee ca la ñuy dund pour ñoŋal lee kon waxtu wi ñu doon tarbiya lañ ko def kooku amoon na cosaan ci biir loolu te ñaari aspect yi la daan jur mais nag lii xew tey ñépp a ci war a taxaw xeex ko ndax mi ngi yàq nag mi ngi tilimal yoon wi dëgg la yoon wi kenn mënu ko tilimal waxin la waaye nag mi ngi may nag ñi nga xam ne ñooy yoon ñooy nooni yoon wi luñ mën a teg ci dara bu yoon wi ndax ponkal moo xam ne tey ni ma koy faral waxee mat naa mën naa ub làmb condition physique am dara sikku ci saa yu xëyee amut benn liggéey wut ne appartement bu baax wut ay jeegam yu baax dugal ci biir su xëyee topp nag mbeddi ndakaaru yi fekk ay gor yi fa ñuy liggéeyee mu yor ay këllam ak i booram di leen ko tàllal naa leen jox leen ma ma yóbbu bamba ji jëf jël lañ xamant waaye jëfal ma jël kenn xamu ko ci hmm? bamba ji jëf jël la xam waaye xamul jëfal ma jël ponkal mu dara jotu di àgg nga xam ne xamewoo kii ab jullit la wala du ab jullit noonu sëriñ Tuubaa la wala ab soppee gan la wala kii nga wër ko mel ni ku koy agressé nga xam ne am na ci loo xam ne lam lay jox jëppee tax mu di la ko jox loolu ñaaw na te partout fedd fu ci nekk ci ponkal moo xam ne tey mën naa ub làmb loola lu ñaaw la luñ dugal ci biir yëf yi loo xam ne bokku ci ndax wax naa ne même bu fekkante ne dañoo ne seen sëriñ lañ ab sëriñ lañ koy yéet itam loolu loolu ci yoon bi ab sëriñ du lekk yalwaan du lekk majaal hadiya la ab sëriñ di lekk ab sëriñ du lekk yalwaan du lekk majaal ab sëriñ hadiya lay lekk hadiya nag ni ko sëriñ Tuubaa waxee as gor day jóg futtiku liggéey liggéey bu sell ci anam gu sell yëkkati ca lamanti xolam bu talli jox ko seexal mu rabbeem ngir jëm yàlla waaye dem di laaj di joxe majal di joxe loolu yoon yu mës koo xam kon ab sëriñ du lekk yalwaan addi yi itam du lu ñuy yalwaan waaye lus liggéey ci anam gu sell la muy phénomène boo xam ne moom itam luñ dugal ci biir yoon wi la loo xam ni bokk ci mu am beneen boo xam ne nag Eh, luy raam la am na cosaan waaye buñ ko seetaanee fii la jëm si phénomène la bu tàmbali ñetti at yi muy safariyaat yi safari yi ñuy def safariyaat yi am na lu ci tàmbali loo xam ne buñ ko buñ ko seetaanee dana mujj dem mel ni taaja boon ja sëñ Tuubaa moo santaane bisam bii bu ñëwee ñu santale ko ci sunu borom sub subhaanahu bisub cant bi bis cant bi mu ko santaane ci bis bi waaye teewut nag ah kenn mënta wax ne lu baax la lu sell la ñu fonk bis bi ba gàttandu ko gàttandu ko gàttandoo ko weer wala gàttandoo ko ay fan wàññiwul dara ci bu fekkee ne fonk bis bi ak ak ak ak ak ak ko rek moo tax ñu di ko def waaye nag bu baax sant Seexul Xadim daf ko leeral xàlla yee sukuru oo bi fardin wa sunan waaye nawaytu sukra bi gis min wa xilaam bi gis min ji mooy lépp loo xam ne yaram gis mu dana ko ataa ul jis mu dana ko produire mooy li ngay def ci mooy li ngay joxe ak xidma bi ngay def ak li ngay wax lépp loo xam ne loo mën loo mën a manragaale cant gi rek baax na boo amee loo joxe nga joxe boo ko mën a moo ko amul ba bis bu ñëwee ci commission yi màggal gii di gàttanu gan ñi ak a teral nga dem bindu ca xitma euh, def sa sukkuri ci sa ci sa kattan ak sa yaram wala sa expérience loolu lépp mooy na nga ko mane waaye kenn digalul nag ngay laaj ngir sant ki ngay laaj ki ngay laaj li la war ci bis bi moo ko ci war yow kay boo amee santal waaye yamaleel sa cant ca la nga am waaye wéreelu gii ñu commencé wëreelu ci safariyaat yi kuñ dem ne la jàpp ci kuñ dem ne jàpp ci déedéet kenn defluwu la loolu dañ laa wax nela li nga am yow li nga am li nga am sant ci sa sa borom li nga amul kenn tegu la ko laa yukallifu laahu nafsan illaa ataaha laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha loolu nag li tax may wax buñ ko fëggut la la la ndax sàmba yi commencé nañ cee dugg ndax tey lépp loo xam ne tey lu mën a indi xaalis la rek yoon wu mën a indi xaalis rek wagga booy ak tubaab booy yëpp dañ ciy dugg ñoo xam ne tey duñu ay taalibe la ñuy laaj jëmalewuñu ko ci cant gi seen bopp lañ ko ciy jëmale junni bu ñu laaj ba ñu jox leen ko bu baree ba bari téeméer ba la ñuy jox kay def café la ci rek ci poosam lañ koy def léegi léegi dafa mel ne traite lañ koy nar a def boo xam ne bu accès kenn ku ci nekk bëgg nga cee defa kii loolu nag yooyu yëpp nag dafay mat a réglementé da ciy am na ci ah, kii bi passé am na ci ñaari cas yu ci am ni muy doon amee ci taaje bon yi ñoo xam ne bu ñu demee tey bu ñu leen kiiwut lu ñu jekk yóbbu loolu day dem a dem ba samba boy yi dañ ciy dugg te boobaa musiba lay doon kon nag nañ ko teel a réglementé balaa àgg foofu nañuy gàttandu bis yi lépp lu waaye am man koo gàttandoo ci loolu nga def ko waaye nag wëlbatiku nag di sonal nit ñi ënd jox ma jàpp ci jàpp ci boobu la ñu war a fexe ba mu bu mu amate nañ wax ne bis bi daal ko la nga am bu dee café la bu dee beñe la bu dee lu mën a doon defal waaye la nga amut nag kenn laaju la ko ndax ka ngay dem di laaj li ko war ci bis bi moo la ca moo la ca war kon bàyyi ko mu defal boppam bàyyi ko mu defal boppam kay ah bàyyi ko mu def sekkuleen loo xam ne kay moo lay santal déedéet bàyyi ko mu santal boppam bu ko dee yooyu yëpp tey dafa nekk yoo xam ne tey eh, fokk eh, ñu ñu ñu ñu xoolaat ko eh, jubbantiwaat ko ndax ay ay rëq-rëq la yoo xam ne yu yu yu yaatu la waaye loolu lépp nag et fi ñuy jeexale rek mooy la sëriñ bi waxan solution bi mooy mooy mooy ndaw ñi toll ci jàng nañ leen jàngal bañ xam li war a xam yar leen ba ñu mel ni ñu war a mal ndax problème bi léegi nekkatul ci xam-xam nekkatul ci am-am ci crise de valeur la mooy jikko yu yàqu yi jikko yu yàqu yi nag dara mënu koo dellu si waat lu may tarbiya parce que Seexul Xadim kat bi mu ñëwee li mu defaree ñëpp mooy tarbiya boobu mooy wayu zakki im jooju ma doon wax wayu zakki im ji ñu dellu si ko wax naa ne. même daaray internat yi nee naa donga bi nekk ci daaray internat te waxtu wu xiifee bu xamee ne kat gaal gee bong bong ak miskitu moroomam maga ca bu xoolee gisul kenn mën naa yootaan gaan nga jël te miskit ma wala bong bong ba ak donga bu mag bi nga xam ne tey buñ joxee donga bu mag bi ay yére yu rafet mu ëpp ko doole di ko sol ba mu màggat ñaar ñooñu buñ màggee ci loolu donte mokkal nañ alxuraan ba ne tareetit buñ doonee mag buñ jaaxlee te amuñu pexe danañ def lii kon ca biir daara ja lañ leen war a jàngale ñu am maandu loo xiif xiif xiif gis loo la jege te nga xam ne maanaa borom joxu la ko doo ca sàkk parce que yu sew sewaan yooyu foofu lañ leen koy jàngale foofa la leen war a jàngalit partage mooy li nga am te say morom amu ko nga nga nga nga nga bokk ko ak ñoom séddoo ko ak ñoom yaatal leen ca loola mooy wayu zakki im jë mu dema dema dem ba àgg ca e, bu ñu demee ca daaray e, xam-xam ji ñu fexe ba tarkiis ci yar bi tokki leen ci jaamu yàlla ak jikko yu baax waaye bu dee alxuraan kese ji képp ak xam-xamu kese bi képp mais tarbiya andu ci mën ngaa génne ay kaañ mën ngaa génne ay fóore waaye doo génne ñu defaru kon nag nañ góorgóorluwaat ci delloosiwaat njàngaleem sëriñ bi ak mën aju sëriñ bi te mooy tarbiya mooy nañ góorgóorluwaat ci tarbiya ndax tarbiya mooy mbir mi kon e, ndoo ngi jéggalu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum sëriñ xaadim waxtaan wi yaakaar naa bokk yi déglu nañ ko ndax la taxoon ñu tànn thème boobu mën nañoo wax ne lépp am nañ ko ci kon ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal borom bi subhaanahu wa taala defal la tawféex ba sa jubluwaay ngir tasaare diine ji te mooy tasaare njàngaleem sëriñ Touba yi yàlla na ko sunu borom barkeel mbokk yëpp ñu ngi lay sant xanaa ngir njëkkanteeg waxtu wi dafa war a am ku def taaliqaat ci li sëriñ xaadim doon wax muy Serigne Abdul Karim Mbàkke moom la ñuy sàkku ngir mu def ci taaliq kon Serigne Abdul Karim bismillah xam naa di mbokk yëgal ne Serigne Baara Touré xalifa Serigne Mor Fati Touré teew na fi Serigne Ibrahima Ndiaye xalifa Serigne Ibrahima Ndiaye teew na fi sëriñ taala ibnu sëriñ basiiru moor it teew na fi xam naa dañuy jox kon sëriñ abdul karim mu def taaliq ci waxtaan wi sëriñ xaadim doon wax léegi jërëjëf sëriñ xaadim Cheikh Abdou Karim mi jox kàddu nag ñi ko xamul tax ma koy leeral Alaaji Falloy maamam sëñ Basiiru Mbàkkeem sëñ Muru bu sa jàng mooy waajuram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 wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida barkeb Cheikhul Xadim mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci Moustapha suñu njëbbal suñu jaayante ci xaadimi rasuli radiallahu anhu ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ci jiital kilifa yi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ndokkeel ñépp di ziar ñépp ci bis bu màgg bii nga xam ne moom lañuy amale di ci fàttaliku suñu jàmbaar ju tedd jooju di kenn ci jàmbaari sëriñ Touba yi muy Serigne Mbacké bu Bousso di wàll yi woo xam ne ak wilaayam kenn nattabliwu ko kon nag lépp luñ ciy def ci bis bi yàlla nañ ci daje ak ngërëmam daje ci ak ngërëmul Sëriñ Tuubaa di jégalu bu baax a baax yi itam ñi fi waroon a yandu ci lañ bokk waaye bi ñu demee ba julli tisbaar dafa am mel menn mbokkum taalibe <coughs> mu way juróom noppalu ñu njëkkante dem ba ca barab ya fekk noppeeguñu fa lañ jóge daal di ñëw fii kon ñu ngi jégalu bu baax a baax di masawu coono itam toogaay bu yàgg bi xam naa dañuy gàttal rek.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 kon docteur Xaadim dañuy gis ne jafe-jafe bi am ci nit ñi nga xam ne bokk na min a taxadiyaat ci défi yi la bokk mooy kayfiyatul jam'i bayna al asalati wal xadaasa foofu la problème bi nekk mooy naka lañuy boolee l'authenticité ak la modernité bu fekkee da nga gëm loo xam ne cosaan la ba noppi am lu la gane si lu baree baree bari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 moom niñ ci dajee sax dafa yéeme te dañ cee daje ak sa maam sa maam a wax loolu bi mu waxee jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci lettre bi mu adressé ndaw ñi te nabbahu yaa yaa subaanu ja xaadakumoo ilal udal manaan wax wax yooyu xaw yépp fi ànd sunat nangam biñ ko ne lu ko waral dana istriqtifaawu asaari salaf li bidain xat zuyinat baynal xalaf ñu ne ko lan mooy solution bi mu ne fasaari on lil ilmi ajmahin muy li nga wax <laughs> parce que sëriñ bi li tax mu neex a waxee moom dalay andil problématique bi andil la cause yi mais andil la solution décrire na problème bi am ci lettre bu mu adressé ndaw ñi wax na li ko waral mooy dañoo sos dañoo fekk li fi mag ñi bàyyi wan muy ndona li ñu sànni ko historique axtifaawu asaari salaf li bidain xat suynat baynal xalaf ñu ne ko lan mooy solution mu ne fasaari on lil ilmi ajmaina li waj isil jalaali xasiri xabla tasaddur wal intiraadi bi nafsi wal adbai fii tamaadi wa mën na akum ani taalum ah moo tax bi ñu jullee bay egg si dañoo wax ne problème bi yépp mooy phénomène yoon wi kenn du ko kenn du ci li ciy mayee nit du xam-xam ak sëñ bi kenn du ko xame ci xam-xam phénomène la boo xam ne demal na ba ki te loolu amul dara lu mën a régler problème bi lu may ñaar yooyu nga wax li nga bujj wax sama ma ko xaat amal betaalatu wa tadyiul umr min xayri ma yubdi fa daahu yadu ne épidémie bi gën a garaaw ci boo xam ne moo gën a gaaw ci maanaa maanaa paralysé ak bloqué aw askan mooy ndaw lu toll ci liggéey li war ñëpp war ko te amutum xëy amutum gont lu may waxtu wu nekk ma ngay wëréeral topp grand place bi wa tadyiul umur min xayri ma yubdi fadaauhu nee na yaddu donc kon li nga wax mooy li sama am rek kon alhamdulilah rabbil alamin kon nag nenu góor góorlu ci fexe ba jaar fi war a jaar gone gi toll ci jàng nañ ko jàngal ba mu xam li mu war a xam yar ko ba mu mel ni mu war a mel surtout yar bi surtout yar bi bi ñuy wax dañoo wax ne eh, sëñ bi bi mu ñëwee yet mat aju rasul yetloo alayhim ayat yi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba fekk na fi yetloo alayhim ayat yi wa yu wa wa wayu kitaaba wal ikma lañ tëban moom la delloo si ba mag ñi defaru ñëpp ci la leen defar ñu defar ñëpp lool waaye nag day ànd ak loolu muy ñett yooyu dañuy amb fokk ñu dellu ci tartib boobu sëñ bi kii woon mën aj bi sëñ bi indi na ko awwalu waajibin alal muridi li yaalaman kullu zakin wa balin analyse yu xaalifan aqatari wal xaqu batul abdi bi tawhidi xam-xamu tawhid mooy tax doo associe yàlla ak kenn doo fekk lu yàlla moom nga di ko jox kenn wala laneen da ngay jox yàlla ab cëram jox yonente bi ab cëram jox sëriñ bi ab cëram boo noppee xam say farata tax yu sax yu bii furóodal ay ni boo noppee nag wabado yastuku in raamal wusul alayi day mu kammil nga doog a wuti nag sayxal mu rabbi boo xam ne critères yi mooy yaqudu o bil ilmi wala ibada ba tey kamaa yura bi ti itinéraire boobu bu ko delloo si waatan rek dara du yàqu kon fokk ñu delluwaat ci biir loolu ah xel nag dal na ndax tey gis nga liifar bii ma jàllatu aj da eh, ahfaadi mbakki Mbacké yi xale yi moom mel na ni woote sëñ bi ca tasawudu subaa rek tasawudu sixaar moom ñi ngi ñi ngi góor góorlu bu baax a baax mais nag na leen mag ñi ak kilifa yi dimbale encadre leen te bu ñu jàngee ba noppi kër bu nekkit am yalwaan la mu ma doon yalwaan mhm. kër gu nekk e bu ñuy demee jàngi wax naa ko ci sama téere boobu ci bi ma mujj génne muy xitma mi ma aju sëriñ bi boobu bi nga xamee ne tey jël nañ ñi nga xam ne tey mooy jàngkat yooyu muy kaang ya sëñ Modou Awa Ndiaye sëñ ma jëmb silla sëñ e, Mor Alima bu dee borom xam-xam ya sëñ ma dem Abdou Latif naaru gànnaar ba sëñ eh, eh, Mouhamad Lamine dafa wax sëñ mët digal sëñ mën lumbe sëñ Balla Paali ne leen ñii nga xam ne nag ñoonu wuutu ci ndaw ñi lañ ci waran def ñu di ko ca def luy tax ñu tëj daara ji wuuti lu ñu yore seen kër boobu am lu ngeen fii indi bala cee dara dugg sama kër gi wala muy dem fenn lañ mënta ñàkk ci luy tax ñu mën a toog yor daara yi nañ ko def sëñ Moustapha dem nee na ma way juróom wu jigéen nee na ko jëlale na dund ba waaye piisi ndima yi siñ mat jigal ñoom ak siñ bàll paal doon indi dañ de daraan bari bañ bañ di ko bañ di ko maye muy ñee dañ leen a yoraalan loolu complémentarité am muy ñi nekk ci biir daara ji ñu nekkul ci biir daara yi moo xam ay cheikh lañ moo xam ay borom yi xaalis lañ nañu nañu taxawu ñi nekk ci biir daara yi fexe ba duñu ñee ñeneen ñi ci des wutaleen ay kër yu baax wutaleen ay war waruwaay wutaleen ay soxna di leen dimbale ñu toog ci biir daara ji wutu wutu leen ca su ko defee boobaa day mel ni nag ñoom bu ñu jàngale wutit mel na ni ña ngay jàngale waaw loolu loolu itam lu am solo mooy ci boobu te loolu sëñ bi mën aj boobu moo ko tëral moo ko tëralan bu ko defee loolu eh, fokk ñu delluwaat te bu ko defee soxna yi ah war nañ leen a war nañ leen a jox ab ab ab ab ab ab ab bind moom it daanañ ci bokk mm-hmm. ndax nag ci bàmba ji liñ ci xam mooy taxawaay bi nga xam ne moo nekkan taxawaayu soxna Fat ja gis nañ ko soxna Astu Gaawaan wuute wut ak taxawaayu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadil ni ñu daan jële ay gone taalibe bi jël doomam jum bëgg ñu defar ko yar ko muy góoram jox ko sayxul murabbi mu yar ko na lañ daan tool ka toll ci jigéen it ñu jox ko sayxatu boo xam ne moom it da koy yar ba bu noppee bu delluwaatee kër baayam day mel ni kii bokkut ci ñoom ndax la muy yóbbaale ci xam-xam ak akub yar akub yiwee lool yi nag am ruur tàmbal la da cee am daaw jéeg wax naa ko euh, yalwaan la sama yalwaan moomee ma doon yalwaan danaa ko waxaat fii daaw jéeg nee naa woon kat maa ngi yalwaan ñi may yalwaan nag comme fii mu ne moom sama yaay yi nee naa woon ñoom ñu ci des bëreetuñ ñi ci des samay doom yi nijaay lañ te mayu ñu ma mbubb ñi ci des samay doom lañ sañ naa leen a digal ci kaw lu ma ay taalibe waxan lu leen metti lool kenn ki États-Unis la nekk kenn ki nekk France ñu ne ma ñun kat dañoo amul jaaxle dañoo nekk foofu sonn ci sunuy njaboot ci duñu nangu ñu seetaan yenn film yi duñu nangu ñu yokk seen karaw duñ nangu ñu jël benn produit buy soppi seen yaram duñ nangu ñu sol yére yu gàtt yi wala yu kii sonn ci ñoom te ñi ngi États-Unis ak France soxna yi ak doom yi ne am at nag ah yàlla nattu nu ñëw Sénégal ànd ak ñoom andi leen kenn ku ci nekk dem sa kër sayxul murabbi ba ñëwee ñu jël jigéen ña yóbbu ca kër soxna ya moom mu toog feefu ñu dem ba gont ah soxna ya filmé lañ fekk foofu ne ko waa yow ah yow dangaa mel ni yow dangaa gën a xam sa sëriñ bii wala la ñun de lan fekk sa njaboot sa njabootu sëriñ bii lañ melokaan wañ leen fekk ñu mel ak la ñu doon sol ak nañu def seen yaram wa ak nañ doon comporté woo même bu fekkante ne maanaam danga noo bàyyi woon su sun sago yi ñëwunoo àgg fee noonu mu ne ko ndax album yañ ni wan rek album ya moo ca lañ njëkk amee déception dañoo jàppal ne album yi soxna astu gaawaan album yi siñ koy waaye album yi ay artist yi ay fecckat ak ay waykat dong lañ ñu wan maanaam lañ doon waxtaan ak ñun lépp ci lii léegi nag ñaar ñu am problème am problème ci loolu parce que léegi lan la ñuy waxati seeni seeni soxna ak les seeni doom wax nag ne loolu te loolu dafa yaatu dëgg la nag fa tabaarakallaahu am na ñoo xam ne tey bu seen maam dellusiwaatan duñ soppi seen seen yi ndax ñi ngi góorgóorlu soxlawuñu or soxlaw ñu dara ña nga yor seen i samp seen daara al alquran di jàngale seen i daara RTNA di jàngale alquran wut ñu leen di jàngaleel xam-xam seen lépp ñu di ko investir ci jàng ak jàngale loolu fa tabaarakallaahu yaatu na bari na lool waaye am na ñoo xam ne it maradi itaali kon nag loolu ruur moomu il faut il faut ñu ñu ñu xam ko xam ne it am na ñu leen di xoo seetaan am na ñu leen di observer ñu góorgóorlu ba loolu dellu siwaat dellu siwaat parce que bu njëkkaa bon boo jëlee sa doom jox ko sa sa doomu sëriñ wala sa soxna sëriñ bu noppee ci moom bu accès dalay matub sëriñ yow yaag waa kër gi ah léegi nag bu fekkee ne loola boo delloo boo dellu siwaatee ña nga fa bàyyi woon sax dañ lay xeeb ndax discussion dara ci ak dolleeku loola moo bi phénomène la boo xam ne bu mat a bàyyi xel ah, kon nag loolu <laughs> complément la mais jërëjëf rek fasaari olil ilmi ji daal <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, docteur ak sëriñ Abdul Karim ci taalix bu am solo boobu yaakaar naa daanaka li docteur waxoon rek moom la ñëw leeral doon donte fekkewul njëlbeen gi sax docteur mi ngi koy wax léegi daanaka li mu wax rek muy ñàkk yittewoo xam-xam loolu nag kon ñun ndaw ñi am nañ ci aw sas wu rëy rëy ñaaree muy complexe leeral na ko ñoom ñaar yëpp ak it ñàkk jéem wut liggéey ndax ñun ñëpp maase nañ yëgandoo jafe-jafe yi am ku ne xam na ko di docteur wax léegi ñun ñëpp maase nañ xam ne am na lu tàbbi ci suñu biir te bokk ci woon kon daanaka leer na ñu ngi leen di sant bu baax a baax dañuy wéyale programme bi rek li ci topp mooy kàddu sant yi nga xam ne euh, sëti sëriñ Mbàkke yi ñoo koy def ki koy def di sëriñ Mbàkke Bousso euh, kon sëriñ Mbàkke mën naa jege si di wax ne sëriñ sëriñ Mourtala Mbacke ibnu sëriñ Fadil teew na fi sëriñ Saalihu Mbacke ibnu sëriñ Mourtala it teew na fi sëriñ Abdoul Ahad sëriñ Moustapha Abdoul moom sëriñ Abdoul Ahad it teew na fi waaye sëriñ Abdoul Ahad jiili mi bokk ci waa Touba ca kanam it teew na fi waa kër sëriñ Mokhtar Aliou Bousso ñoom it teew na fi ci teewaayu sëriñ Abdoulahi Bousso sëriñ baara bu soy jiili teew na fi euh,